innaka anta al-alimu al-hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wa ba'd assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu santee suñu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa di yeesal suñu jaayante ak suñu cofeel ci suñu sëriñ Maulana al Abdul Xadim di leen nuyu nuyóobu lislaam boobu yi di leen ndokkeel itam di jiital ci nuyóo bi ak ndokkeel googu kilifa gu mag gi fadilata cheikh Mouhamadan al Muntaqa mi nga xam ne moo yore caabi buntu këru Cheikhul Xadim ñu ngi koy ziyaara bu baax te di ko ndokkeel ci e, weer wii ñu nekk di weeru safar safarul xayr di ko ndokkeel ci bis bu màgg bi nga xam ne moom la ñu dëgmal di bisu màggalu tuuba waaye sax di ko ndokkeel ci yi ko jiitu rawatina ndamal lislaam lu rëy li nga xam ne moom la sëriñ bu mag bi amati te am ko ca Ndakaaru te mooy néegu bu yàlla bu mag boobu di jumaay Masaalikul Jinaan ñu ciy ndokkeel sëriñ bi bu baax te mel na ne buñ ko ci ndokkeelee ndokkeel nañ mboolem njabootu Seexul Xadim bi yëpp waaye ndokkeel nañ mboolem kilifa yi diine yëpp ndokkeel nañ mboolem jullit ñëpp ak taalibe yëpp di ko ñaanal nag moom sëriñ bi suñ borom yàggal ko fi lool te may ko wér dëpp ko kattan ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ bi ci toolub lislaam bi mu liggéey ko ci sagoom te lépp ñu ànd kook moom ginnaaw loolu maa ngi nuyu suñu bokk yu baax yi nga xam ne ñooy waa daairatu muqaddamatul xidma ci njiital suñu kilifa suñu mag sëriñ Afiya Buso al imaam di teg bi ci loxol sëriñ Abdou Lahad Buso Cerno mi nga xam ne moo jiite allajna saqaafiya attaabi'a lid daa'ira ak sëriñ am di ñoom yi nga xam ne ñoom lañu ñu bokkal jataay bi ak mboolem membre yi xidma yépp rek di leen ndokkeel ñoom itam bu baax a baax ci liggéey bu am solo bii nga xam ne waxtu wu nekk ñu ngi koy taxawe ngir dundal njàngaleem sëriñ bi ak waggar itam ndonoom li nga xam ne ndonol xam-xam la di ndonol diine yal na yàlla fay leen te sàmm leen te taxawu leen te yàlla may ñu ñu àgg ci bis bu màgg bii ñu dëgbal ci jàmm te dundal ko ci anam gi nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg te lépp luñ ci def itam mu dëppoo ngërëmam dëppoo ngërëmal suñu borom subhanahu wa taala di nuyu ñi fi teew ñëpp di sant sëriñ Amady Moustapha ci ubbi bu rafet boobu mu ubbi joxe itam fi nga xam ne fi la waxtaan wi war a jëm insha allahu taala ni mu ko waxee dañoo baaxoo at mu jot ñu tànn bind benn bind boo xam ne day jur ak waaru ak fàttali ñu niitoo ko nag wala ñu jukkee ko nag ci tukkib Cheikhul Khadim bu mag bi nga xam ne moom la tukki woon ci géej gi te mooy li waral màggal tukki bi xam ngeen ne moo waral màggal ni mu ko ni ko sañam di waxee muy tukki boo xam ne Bakel gi dafa jéggi dayoo kawe lool li ci nekkit ci ay bind ak i meññet yoo xam ne waras na ko mën a jariñoo itam bari lool ba tax toog ci benn jataay waxtaane lépp defe naa ne yomb moo taxoon ñu xalaat at mu ñu jël benn bind jële ko ci tukki bi nafar ko ak bokk yi jéem cee jariñu ñu ñi koy wax ñu koy jàngat waaye jéem cee jariñ it képp koo xam ne bëgg ngaa jariñu tukki Sëriñ Tuubaa boobu yi nga xam ne njariñ li foo ko takk rek weesu na ko ndax bokk na ci e, ñeenti mbir yi nga xam ne wax na ne keroog bi muy digle màggal wax na ne yàlla defal na ko ci liggéey bu rëy bii mu liggéey woon ci géej gi tuddoon na ca njariñ loo xam ne dafay sax dàq te matale loolee mu junjoon ca xarafi arnabun gi nga xam ne ci arab mooy tekki e, lëg te boo demee ci alminaxul miskiya suñ mat laamin Jóob Dagana mu indi xissa ba alif ga daf koo firee woon ne mooy ijaaba ijaaba mooy ak wuyu ak nongu ci lépp loo xam ne lu mu doon yaakaar la ci boromam lu mu doon ñaan boromam la te suñ borom diggoon ko ci tukki bi tukki bi jeexee natt yi jeex jot na ci ijaaba googu lu mu ko mas woo rek wuyu na ko fexe ba yoon yi nga xam ne moo ci àggale nit ñi itam ñu dog ko ba kenn du ca mën a àgg ba di ca tab bi aslan nga xam ne doo ci jaar aslan wala boog buy amit bu lu bon loolu di amit safaan boobu buy amit tam du doon luy faral di am lu bare bare bare bare kon loolu mooy ci tënk lan mooy maaruf ak lan mooy mun munkar ak it bu ñu leen booleeg amru bil maaruf ak annahyu anil munkar mooy lan kon ci tënk daal maaruf mooy lépp lu sharia santaane yàlla digle ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jottali ko kilifa yu baax yi doon yonent yi borom xam-xam yi waxtu wu nekk ñu di ko fàttali di ko jële ci njàngaleem alquran ak njàngaleem sunna loola mooy lu baax te moom la suñu borom waxoon sallallahu alayhi wa sallam ne ko xudil afwa waamur bil urf wa arid anil jahilin yooyu dañu wax ne moo tënk jikko yu tedd yi jikko yu baax yi nga xam ne moom la alquran indi te jàngal ko sallallahu alayhi wa sallam ngir mu jëm bët ko ci jullit ñi waaye safaan ba it mooy kon lépp loo xam ne rek wuute naa ak loolu lépp lu wuuteeg lu baax rek lu ñu tere rek lu yonent bi tere jële ko ci boroomam ñu baax ñëpp tere ko borom xel mu sell di ko bañ loola munkar la suñu blaat mas na koy misaal bay wax ne munkar mooy ak ba muy wax jif ju baax ak safaan yoo xam ne lu lu baax mooy loo xam ne tey soo ko doon def soo ko doon def bañoo ku gis la bañoo ku ko nettali nga dégg neen loolu mooy jëf yiw daanaka jëlul jàng téere yu bu dee loolu rek nga bëgg a xam mooy loo mooy baax mooy loolu safaan ba it loo xam ne tey soo ko doon def doo bëgg mukk ku la fa fekk waaye doo bëgg it ku ko nettali nga dégg neen loolu mooy jëfi safaan kon loolu mooy tomb bu njëkk bi bu ñëwee ci tomb ñaareel bi muy solo si nga xam ne nag digle lu baax am na ko ak tere ak safaan loolu lu leer la sañam li am na lu mu ci junj ci tàmbali bi danañ ci ñëw léegi li ci jiitu mooy ne solo si mi ngi tàmbalee ci ne loolu ak ak jaamu yàlla la ak jaamu yàlla la goo xam ne ki ci nekk di ko def ci kaw ndigal walla mu di ci jublu sàkku tuyaaba yàlla tax mu di ko def su ci saxee te sellal ko dana ko yóbbu ba mu jege boromam mi ngi ci jaamu yàlla bu koy xëcc di ko jegeñal boromam te lépp luy tax jaam bi jege boromam loolu mënees na koo tuddee ak jaamu yàlla rax ci dolli nag moom digle lu baax ak tere ab safaan di ndigal di ndigal loo xam ne dafa bàyyi ko ci suñu borom subhanahu wa taala te ndigal ndigalal yàlla jaamu yàlla la kon def gi day lu war digle lu baax ak tere ak safaan lu war la lu war la doonte am na ñu koy dugal ci far fardu kifaaya te mooy loo xam ne su ñépp maase woon toog jàpp ci seen jàmbur xeet wi kenn digleetul lu baax kenn tereetul lu baaxut ñépp ay am bàkkaar te waxuma sax ñépp am bàkkaar waaye merum yàlla sax buy wàcc soo moytuwul du bàyyi kenn te loolu dana feeñ léegi ci insha allahu solo si beneen bi ci des ci liy wone am solo digle lu baax ak tere ab safaan mooy ne dafa bokk ci cislaa yi yi ñuy tabaxe aw xeet ab société bu war a nekk benn bopp war a bennoo war a am kattan ay nit ñu ñu bokk aw xeet di dund cim réew wala cib gox doomu aadama matut ñépp mënuñoo bokk nekk ñu parfait ñoo xam ne yàlla da leen a musal ci jëf ju safaan bu ñu seetaanee kenn ku ne di def lala neex fawda day judd li ñuy tuddee fawda mooy désordre day am te bu loolu amee ku ne xam na ne aw xeet du mën a taxaw ci fawda société mënul taxaw ci fawda ak tooñ ak kenn ku ne àq ja nga war a am ñu war la koo jox ñu xañ la àq jooje kon faaw mu am ñoo xam ne dañuy jóg taxaw di wàññi nit ñi di leen jubbanti moo xam ñu koy defee ci anam jàngale wala ci yeete wala sax ñu nekk ay attekat yoo xam ne yàlla da leen di jox kattanu àddina ngir ñuy saytu société bi di leen jox sécurité di leen jox stabilité ndax ñaar yooyu ñooy ànd sécurité fu mu ñàkk stabilité du ba dafa mën a am te loolu alxuraan da ko firndeel ba demee ci mujjug suratul euh, naxal defe naa suñ borom ma ngay joxe misaal ci dëkk boo xam ne dafa amoon sécurité am stabilité suñ borom di leen baaxe xéewal xéewalu koom-koom di leen dikke ci wàllu gu ñu dem ba mu yàgg yàlla yónni ci ñoom ay yonent ñu leen di digal lu baax di leen tere ab safaan ñu weddi yonent ya di leen bunduxataal di leen sonal ak di leen gotti di leen tooñ suñu borom xañ leen teraanga jooju mu leen joxoon xañ leen sécurité ba xañ leen stabilité ba wa daraba allahu mathalan qaryatan kaanat aminatan mutmainna amina mutmainna amina mooy dafa amoon sécurité ñépp nekk seen jàmm kenn du ragal sàcc